laay am maanaam ñaar doy na ma danaa fexe ba du yokk wala ñett doy na ma danaa fexe ba du yokk walla ñeent wala nangam loolu lay laaj lu ci sharia wax tax di du nas li boobu am na lu ci sharia nangu mooy bu am sabab bu wér bu sharia nangu sabab bi sharia nangu bokk na ci docteur bi seet la bane ne sëg wér nga mën a ëmbati doom mu dig la ca ak faatu wala yàqu wala sonn lool bu boobaa boo mënee dañal ko te dañaloo ko bu ca leneen fekkee bu la ca leneen fekkee yaa ko def ñu seet la ñaareel bi ne boo ko defatee dana la indi jàngoro joo xam ne dana la fitnaal ba tey dana dal di dagan walla mu war sax nga yemale sa njur mi foofu ak nu mën a deme mu seet nag yeneeni sabab yi nga xam ne tax na nit ñi di soow ci yemale am jur yu ci sharia nangu ak yu ci sharia nanguwul lu daal di am yu nu ci génn dàq ko fi saa si ci tàmbali bi mooy ki ne dama bëgg a mën a yar sama ay doom te buñ baree duma ma leen mën a yar te moom kat waxtu wu liggéeyee ba wàcc ma ngay jaar ca grand place ba du seetlu ndax doomam ñibbisi na wala ñibbisiwul du seetlu ndax jàngi na wala jàngiwul du seetlu ndax mu ngi jaar ci yoon wu jub wala jaaru ci kooka bu ne bëgg a yar sama njaboot tax ma def tax di nas li waxul dëgg yàlla du ko nangu yonent bi du ko nangu ki nga xam ne itam dafa seet ne moom kat sax mën na àttan njabootam waaye dafa nay bëgg na daal tam ci banque di màgg te bañ a wàññi mu daal di man daal damay wàññi jur mi li ci war duma ko mën fekk na moom kat buñ ko seetoon daañu xam ne am na lu mu dundale njabootam ba mu doy sëkk waaye nag bëgg a dajale alal rek a tax kooku sharia mayu ko mu def tahdiidu nasli boo ko defee def na loo araam te yàlla dina ko topp tahdiidu nasli ci ay anam bu fekkente ne doom ji dafa am ba noppi ñu bëgg koo dindi moom leneen la kooku xatara ngi ci ndax sharia ni alquran waxe laqad xalaqna l-insaana min sulaatin min maa'in min tiin summa ja'alna suluba min sulaatin min maa'in min summa sawaa wa nafaxna fiihi min ruuhinaa bi ko jiitu suuratul Hajj mooy ko ba de xalaq fa xalaqna l-alaqata mudghatan fa xalaqna l-mudghata izaaman fa kasawna l-izaaman lahman summa ansha'naahu xalqan aaxara doomu aadama bi atwaar lay def wa qad xalaqakum atwaaran maanaam ay étape lay évoluer ci biiru ndey ji fekkee ne dañoo nekk ba doom ji am ba noppi nu bëgg koo dindi. waxtu woo xam ne ba mu sosoo ci la gën a ci la gën a jege ba mu sosoo rek moo gën a néew xatar moo gën a néew bàkkaar bu àggee nag fi nga xam ne li wax ñetti weer yi weesu na ko day daldi xaraam ndax bakkan xaj na ci te ñaari bakkan lay doon itam bu fekkee nag dañuy fexe rek ba du am ci jamono yi jaahiliya li jiitu lislaam moom jaay li yoon ñoom dañ daan rey xale bi bu dee jigéen ba alxuraan ne wala taqtulu awlaadakum xashyata imlaaqin te boobu ñooñu la taxoon ñu di ko def rek ba ragalum ñàkk ñooñu loolu alxuraan tere mbir gu leer léegi nag bu fekkente ne nun danoo dox ak xam-xamu adduna ba mu àgg ci man loonu nu mën a fexe ba nit ki du ëmbati benn dañuy walbati ci tuñul kaayam wala dañ koy takk yeew wala dañoo am appareil bi wala leneen lu mu mën a doon wala ñu dem ba mën koy pikiir lu mu ci mën a doon charte yi ñu waxoon bu fekkee ne nit ki ndax jullit bi dafa xamul wërsëgam fu mu yem li mu am tey mënul xam ndax ëllëg day yokk wala day wàññi ko bu ne itam ñaari doom doy na ma mu am ñaari doom yàlla mën na dogal ñu feebar dee du am dara loolu moo tax bu nu demee ba ci tahdiidu nafs yi bu nu seetee anam yi nga xam ne euh, sharia daganal na ko ci dem nañu ba am ci ulamaaw yi ci ñi ko ci gën a euh, yombalal ku ne jigéen ji bu xamee ne bu baree njur dana tax mu ñaaw dana yàq rafetaayam sax nee na dagan na mu def tahdiidu nafs yi xam nga kooku kon woyefal na ko woyefal goo xam ne ba tey mu ngi dollu ci yaramu nit ki akuk wéram te ndax jigéen ji dafa am maanaam li wolof di wax gànjar te gànjaram xëy na mooy rafetaayam dem nañu kon ba sharia may ko ci loolu ci waxi aalim bi nga xam ne mu ngi ci fiqhu sunnati imaamul xasali la ko la ko man nag gisaguma ko ci mbindum xasali waaye sayid sabiq wax na ne imaamul xasali yi wax na loolu bu fekkente ne wax la itam wax ju doyee di la bu fekkee ne daal dindi nanu mbirum wér-gu-yaram nga xam ne koo kon dana ko daganal nu dàq itam ki nga xam ne itte woowul yar njabootam te mu bëgg a làqoo ci ne dafa bëgg mën a yar njabootam te muñ bare du leen mën a yar tax mu def tax di du nas gi kooku itam ñu xam ne dàq nañ ko def na lu araam ki nga xam ne itam dafa nay diggante tuyaaba ju bari yi nga xam ne moom lañu ñu diggee ci njaboot ba sidna omar ne sol dal li weñ di ca dox ngir lu ma dundale sama njaboot ba mu ràpp moo a gënal di jihaar ci yoonu yàlla ba dee ndax njaboot dundal leen ak muñal leen ak yar leen tuyaaba ji ci nekk bu fekkente ne waa ji alal ji muy dajale néegu ci dundal njabootam ba tax mu ne di def tax di du nas li kooku lu ñu dàq la xaraam na bu fekkee ni itam noof laay rek la la ci bëgg xaraam na bu fekkente nag dafa ne peuple bi ci boppam mooy bari bari goo xam ne dootuñu mën a dund mën nañoo am ay exemple ci Inde ak yooyu ba tey dana aajowoo ñu seet réew mi nga nekk ndax moom àggagum na foofu wala àggagu fa réew mooma itam ndax loola rek a waral xiif ba rey leen ndax bari ga rek a ko waral loolu lépp lu ñu war a seet la boo gisee yonent bi sallallahu alayhi wa sallam ne al muminu laa yuldaxu fil joxari ni ku gëm yàlla lëf du ko màtt ñaari yoon cim kan bu dugalee loxoom ci kan mi jaan màtt ko du ko ci dugalaat li ñu da bëgg a wax ne jullit bi dafay am xel di jiital xelam ci lépp lu muy jëf di ca seet atteb yàlla di ca seet lu jub di ca seet njëriñ lu dagan waaye nit ñiy wéy ci lii rek nga dal di cay wéy jullit ku gëm yàlla du ko def ndax adduna bi nit ñi dafa am ay xew-xew yoo xam ne du ñu xam li leen koy indil ñu def ko ci xeli nit ñi ñu du ko waxe ñu toogub diir leneen xew wala lii dañ yooyu yëpp lu ma ma waxee sànq ci seexu tarbiya ni leen war xew-xew yii ñëw ci réew yi ak fa muy jóge ak la koy fekk ak biddi wi asamaan yi taasiir yi ñuy def seeni am si maanaam seeni tempérament moo dina dafay dellu ci wax ji sallallahu alayhi wa sallam wax ne al muminu laa yulduxu fil juhari marratayni jullit bi lu ne kër kër ne këpp na teey ba xam fu mu jógee fum jëm lii bala ci ànd na seet fu ko jëme na seet gannaaw ba mu seetee àtteb sharia ba xam dagan na wala daganut bu nu jàppee rek ay exemple ci ay réew ñu ne xiif baa nga fay rey ay junni nanu seet bari gi wax ndax dëgg la bari gaa tax wala déet wala lana ndax bu bari ga dañee xiiba dana dañ wala déet li ñu waxoon itam ci geenu jamono dee bu bari bi loolu ñëpp xam nañ ko léegi fi mu nekk réew yu bare bare bari bis bu nekk dañuy lim ay téeméeri téeméeri yu dee ni ñu ko waxee woon rek dee gu bari googu ak xare yi mën naa wàññi nit ñi bu baax a baax a baax moo tax sharia dafa xamal nit ki ne ko lu sori bu ko séenu mooy ak taawilul baid taawilul baid sharia def koo dàq taawilul xarib la ñu nangu nit ki daal am na euh, wér-gu-yaram goo xam ne gu dëgërul la bu ëmbatee dana feebar wala lu mel noonu yoo xam ne yi wóor na ko moom la sharia di daganale mu def tahdiidu nasli waaye taawil lu sori yoo xam ne xamul dana ca àgg dana ca àggam déet wala buy àgg jamono bi dana fa soppi ko ba loolu duuf demee noonu wala déet sharia ko kon tahdiidu dagan dana xaraam danañ ko sib daañu ko digle muy lu war itam dana war ci bi nga xamee ne bakkan aju na ci dana dagan bi nga xamee ne lor néewu ci ci di néewu ci waaye dana xaraam bi nga xamee ne amul dara lu ko def tabrir maanaam lu ko justifié amul nu def ko bu ñu ko defee ngir suñu bànneexu bopp benn nu bëgg a ñoŋal suñuy alal wala nu tàyyeel wala di daw yi fare wala nga xam ne dañ koo wax ci woote loo xam ne nekkul ci nun loolu lépp yoon daf koy xaraamal jullit bi daal kon na settantal kaa bi mu nekk moom kon buñ ko daganaleel ci ñëpp buñ ko araamaleel ci ñëpp buñ ne népp nañ ci jàll jublu nanu seet am na ñoo xam ne dagan na ci ñoom am na ñoo xam ne ñii war na ci ñoom am na ñoo xam ne ñii dañoo war a seet seen bopp xëy na dañ koy sib ci ñoom wala day araam ci ñoom noonu la waaye dafa ami détail mun loo rekk ne tahdiidu nasli dagan na ku ko def ku ko wax xamuloo la nga wax wala xaraam na rek déedéet ay kaala am asalaamaaleykum lu ñaari glace te yooyu la woon seen jëflante nan la war a fan la war a yem borom kër mën na yóbbu soxnaam àjjana soxnaam mën na yóbbu borom kër àjjana baay mën na yóbbu doomu àjjana doomam mën na yóbbu baayam àjjana xarit mën na yóbbu xaritam àjjana mi ngi aji ci ki texe rek ba darajaam àgg ci rammu mën a rammu fekkee ne jigéen ji moo gën a far farlu góor gi gën koo jub gën koo xol gën koo nangu jaamu yàlla mën na koo rammu ëllëg neneen ni nit ñi waxe nag naan jigéen boroom kërama ko yóbbu àjjana mat na seetaat yóbbu àjjana bi du ceeg ne dafa am sañ-sañu ne ko rek ñëwal dem àjjana déedéet yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa ne ida sallat almaratu xamsaha wa saamat shahraha wa xajjat baytaha wa xafisat farjaha futixat laha abwaabu aljannati wa ataat zawjaha futixat laha abwaabu aljannati tadxulu min ayiha shaat imal qam aw kama qaala alayhi salatu wasalaam jigéen su jullee jullee julli juróomam xam ngeen ne farata moom kenn mënu koo yóbbul kenn farata moom kenn ku nekk war na la naafila muy koor muy julli borom kër bi sañ na ne borom sañ na ne soxnaam bu fekkee ne gis na ci lor bul woor warula woor bu wooree mooy ne yàlla waaye nag du kooru farata bu dee kooru ngàtt nga wala julli ngàtt nga waaye farata moom farata kenn mënu ko yóbbul kenn du kenn du kenn ku ko mën a yóbbul kenn kon waxuñu ko bu fekkente nag jigéen ji woor na weeru kooram matal julli juróomam wattu boppam mooy mu maandu topp borom këram yonente bi sallallahu alayhi ko wax bu keroogee ñu ubbil ko juróom ñetti bunti àjjana yépp mu tàbbi bu ko ci soob kon noonu waa taat zawjaha mu topp borom këram kon su ko defee borom këram yóbbu na ko àjjana waaye moom moo yóbbu boppam àjjana moo yóbbu boppam àjjana ndax moo jëfe li tax mu yóbbu boppam àjjana ñu boole itam jigéen ji nga xam ne dana jaamu yàlla waaye dafa dëng toppul ndigal toppul ndigal borom këram juróom-ñeent ñi nga xam ne laaraaf la ñuy dem boole nañ ko ci ba tey yóbbu àjjana nag nit dana yóbboo yóbbu nit àjjana noonam sax noonam nit dana ko yóbbu àjjana Seydina Abdul Abd Sha'rani nee na suñ borom may na ma. yomal xiyaam ñi ma bañ ñëpp maa leen dugal àjjana ñi ma ñi ma bëgg ñëpp maa leen dugal àjjana mu ne ñi ma bañ ñëpp li tax ma di leen dugal àjjana bi mooy ñu xam ne maa leen gën foofu te budul a man duñu duñ dem kon bi ñu ma bañee dañoo gorewul maa leen gën a gore loolu moo tax gis ngeen kooku moom xaddis yi bari ne yomal xiyaam yonent yi daañu rëmm malaayika yi daañu rëmm borom xam-xam yi daañu rëmm awliya yi daañu rëmm jullit ñu baax ñi daañu rammu doom yi seen waajur gërëm daañu wallu daañu rammu ñoom ñëpp daañu rammu rammu mi nag dañoo rawante buñ ne ulamaa yi daañu rammu ulamaa yi ay catégorie la ñu awliyaa yi daañu rammu awliyaa yi ay catégorie la am nañ ñoo xam ne xamal na leen fii ci àdduna danga rammu diw ak diw ak diw wala danga rammu nangam lu toll ne nangam ñoo xam ne borom ko borom kër mën na yóbbu soxnaam àjjana soxnaam it mën na yóbbu borom këram àjjana ndax mbir moom doon leen dong la topp yàlla def say warugar rek boo amee ngërëmal yàlla danga mën a rab muy góor gi muy jigéen gi mën sa morom waaye nag jigéen gi la ñu sant mu topp góor gi jigéen gi la ñu mbax ñaar ñu ànd wala fukk wala ñett war na am ku jiitu cheikh moom mënu la ñàkk rawatina lu toll ni famille yu lëmm faw mu am ku jiitu góor gi nag la yàlla jiital ci ni mu xamee donte du ngëneel du lenn lu dul bind bi ko yàlla bind yàlla góor la bindee binduk mu war am autorité ndax moom la jox charge yi ëpp loolu moom ñi ko bañ sax nangu nañ ko nangu nañ ko ci seen jëf ndax lu yàgg-yàgg même tubaab yi bu ñu demee ba ne góor ak jigéen a yem yem kenn mësu koo weddi waaye nag kenn ku ne da ngaa am sa wàll jigéen ji buñ ko mayee day wacc ci turam pour góor gi lay daal di cib ci tubaab ba noppi itam doom ji ñoo ko seq lu tax muy ñu da koy jox santu baayam bàyyi santu yaayam te loolu adduna bépp maase nañ ci maanaam li ñuy wax patriarcat xëy na matriarcat mas na am ci jamono ak i jaar-jaar yi mu jaar ba dañ ak la ko tax a dañ waaye li leer mooy arrijaalu qawwaamuuna ala nisaa bu ñu ko seetee ci jamono yu rek doon nañ werante benn nit boo xam ne xëy na dafa jàng topp logique am ne man daal ci man ni ma gisee ci miraas niñ koy defee jubul góor ak jigéen ñu bari bañ a yemle te ñoom ñaar ñëpp la seen bàyyi jur te kii am ñaar nef yu jege yoo lool ak nef yoo xam ne xaw na xëccante tuuti faw lu seet kaa yi bu ci nekk nef yu jege yooyu lool ni ma ko waxee woon rek xaayida boobu bu fekkee ne dana lor nit ki ci wér-gi-yaramam dagal na ci moom mu dindi ko mu mu espacé ko maanaam mu soriyantal leen loolu moom amul benn sikki sàkk ci ni ma ko waxee woon rek ci mbirum wér-gi-yaram kooku moom lu leer la bu fekkente ne dafa jege ba nga xam ne dana ko fitnaal wala mu mën a indi ci wér-gu-yaramam dara mu daal di mu espacé ko kooku bokkul ak dagg ko mu jeex bokkuñu kooku moom lu dagan la kii liggéey itam fi muy liggéeyee li muy liggéeyee bu dee moom lay dundee tax di du bi dañ ko ci forcé daanu seet xeetu forcé bi nan la demee fekkente dañ ne ko dañ lay dàq wala dañuy wàññi sa salaire wala dootoo am allocation wala nan la ñu seet ko bu ñu seetee rek ne lor ja ciy jógee daganal na mu def taxdid taxdid bi benn day espacé wala day dagg mu jeex dootu am doom foofu la ñuy mën amee acte bi. bala ñuy mën a àtte kaa bi dañuy isolé benn kaa àtte ko waaye duñ mën a boole kaa yëpp àtte ko ku ko def rek dala juum ndax faaw nu xam force bi nan lañ koy forcé ban forcé la bu mu mën a muñ la wala bu mu dul mën a muñ faaw nu xamit ki ñuy def loo tahdid ñaata lañ ko may ndax tahdid mën nga am benn ñu ne la bu mu fi wees wala ñaar ñu ne la bu ñett ñu ne la bu mu fi wees léegi faaw nu seet ko niñ la forcé itam faw nu xam ko buñ ko xamee nag nu def muwaasana maanaam ñu daal di balancer atte euh, peese diggante lor ji ak njëriñ gi ndax moom contrainte rek la ñuy boo amee contrainte rek lay dagan dana dagan fu ñu demee nag ba naan jigéen ji bu dee euh, jur gu bari gi dana yàq euh, taaram daganal na ko mu def contrôle de naissance contrôle de naissance moom moo war a am moom ah mu mu def limitation de naissance kon bu fekkente ne su muy liggéeyee imposé nañ ko loo xam ne xam na ne lor la bu bàyyee du amati liggéey te moom lay dunde du du bañ faaw mu def ko dañu seet nag ba xam degré yooyu fu ci toll fan la toll ci nañ koy euh, force maanaam nan lañ koy mbugale ak ci ñaata lañ koy yemale loolu it faaw ñu xam ko soog a mën ko lislaam day alquran dafa ne wa qadimna wa qadimna ila ma amilu min amalin fa jaalnaahu habaan manfuuran yéefar bi weddi yàlla wala mu weddi yonente bi sallallahu alayhi wa sallam mu jëf-jëf yu baax jëf yu baax yi mën na koo jëriñ ci àdduna mën na yokk fanam mën na ko may wér-gi-yaram mën na koo jox chance maanaam wërsëgam yokku yooyu yëpp mën na koo def waaye bu àllaaxira gannaaw yàlla taxuloo mu di ko jëf jëfalul woon yàlla yàlla du ko fay bu ko roogee wa qadimnaa ilaa maa amilu min amalin neen dañuy jóor jëf jëm jëfoon ba ne ko leekat yaa ko jëfoon ba bare ñu def ko ngelaw mu naaw fa mu def ko pënd mu naaw seer wa qadimnaa ilaa maa amilu min amalin fa jaalnaahu habaan mansuuran la alquran wax kon yéefar bi li muy jëf ci lu baax man na koo jëriñ ci àdduna de waaye nag payug yàlla moom du ko ca am ndax yàlla dafa yónni yonent ne ku ma jóge ci wet gudul wet gii ku ma jaare ci bunt budul bunt bi du ma nangu sa jëf kon nag jëf nit ki day gëm yàlla gëm yonent bi jëf ji dëppook sunna soog a am mu sellal ko soog a am jëriñ waaye jullit bi sax bu jëfee jëf joo xam ne yàlla taxul du duñ ko defay ëllëg rawatina nag ki gëmul yàlla jullit bi bu ñi wala muy jëf ngir leneen la muy jëf du ko jëriñ ëllëg yomal xiyam dara du ca am tuyaaba ndax jëfu ko woon ngir yàlla suñ borom daf naan ko demal ca ka taxoon ngay jëf fay la la taxoon muy jëf demal mu fay la te bu tabe ci la wala ak nit koo xam ne dafa bari njëriñ ci mbindeef yi bu doon yéefarit duñ ko fay waaye du dem àjjana ndax àjjana ku jaamul yàlla doo ca dem waaye du lakk ndax suñu borom dafa tabe te ku tabe dangaa niroog moom te suñu borom du lakk ku niroog moom kon aji tabe du dugg safara koor gi moo laajte mu ne dafay jàmm yàlla boole kook bëgg sëñ Tuuba waa dëkkam nag sonal ko lool mu ne ndax dafa war a bàyyi loolu walla dafa war a continuer rek bàyyi jaamu yàlla gi rek bëgg sëñ Tuuba xanaa <laughs> keneen kii it mu ne jigéen ji mu laaj mu ne ndax lan lu waral fàttu makkatal mu karam <laughs> jaamu yàlla bëgg sëñ Tuubaa mu indi la fitna na sa xel dellu si saaba yi rek dañoo bëggoon yàlla di ko jaamu ñu di leen fitnaal bu la def nag bu jaralul fitna ah am na bu ñu la boo ci amee njariñ am na fu muy yem am nit diine ma ko gën a war a war a gën a léppam ndax jaamu yàlla moom dara warul jar bàyyi ko jaamu yàlla moom bu ñu la doon rendi it waruloo ko bàyyi nga dee nekk shahid maanaam martyr moo gën nga bàyyi ko am na nag ba tey restriction maanaam ma am na tuuti set loo xam ne ci Seydina Ammar ibnu Yaasir la doxe woon ba tax aaya jooju wàcc ji man kafara billahi min baadi imanihi illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil imani walakin man sharaha bil kufri sadran fa alayhim ghadabun min allahi wa lahum adhabun azim ñu àggale ci ba nopp soog ci dellu si bëgg sëñ Tuubaa jullit rek dañ ko war a bëgg nit ku bëgg yàlla dañ ko war a bëgg te sëñ Tuuba bu dul woon dara it bëgg gi mu bëgg boroomam bëgg gi bëgg yonent bi jub gi mu jub farlu gi farlu ba jox léppam boroomam mu jaral ko lépp ku ko bëggul li ko sëñ Abdul Ahad waxee rek ne na ñaar doo nga koy bañ ki ko xamul ak ki nga xam ne ni ko yàlla def dafa la neexul ah ki ko xamul nag nit lu mu xamul xamu ko ki xam nag ni ko yàlla daf dafa la neexul da ngaa añaan ndax jullit bi war na bëgg jullit ñëpp ñëpp ñëpp la war a bëgg boole bëgg képp kuy jaamu yàlla rek dañ laa war a bëgg te kon kii gën a farlu si jaamu yàlla gën a bëgg yàlla lañ war a gën a bëgg nettal naa ko ay yoon ku ñu wax no ay maan ci saxaaba yi la bokkoon nekkoon nit ku bari kaf daf daan reeloo yonent bi alayhi salaatu wasalaam daf daan léeg-léeg bu gisee luy jaay mu lepp ko dem indil yonent bi salaa sallam yonent bi séddale jox saaba yi ñu lekk bu benn bu ci ëllëg saa bu kooku ñëwee di ko fayu mu jàpp ci mbubbam ba agsi ci yonent bi ne ko fayal kii ah kii lu ma ko ameel ba di ko fay mu ne ko la ma fi indi woon démb te ñu lekk ko ah, da ma ko mayoon aw ma ko fayee waa jooju nag daan ndox ma mu ñuy tere mu mos ko am mu mos ko nag bis eh, dóor ko daal juróom-ñett fukki yar war ci ñu dóor ko ko mu dellu ko defaat ñu dóor ko ko mu delloo ko defaat bi ñu ko dóoree ba noppi am saxaaba bu ne yàlla rëbb na diw daal di tudd daal yonent bi ne ko bu ko waxati mukk ku bëgg yàlla la ku bëgg yàlla la nga xam ne kon ku bëgg yàlla julli ñu war nañ laa wormaal buñ ko xamee ci yow war nañ laa teg ci place bu kawe bu fekkee ne bëgg nañu yàlla ku bëgg yàlla képp ku bëgg yàlla wala ngay jàpp ne bëgg na yàlla war nga ko bëgg képp koo xam ne nee nga bëgg nga yàlla te am ku ñu xam ne bëgg na yàlla bëgguloo ko booba bëgguloo yàlla da Muusa alayhi salaatu wasalaam suñu borom mas na ko ne loo ma mas a defal mosuloo maa defal dara mu tudd jaamu yàlla yim jaamu yàlla ak nit ñi mu gindi indi lépp mu ne ko lépp sa bopp nga ko defaloon ndax dama lay fay mu ne ko man kon xaw ma lu ma la mën a defal mu ne ko nga fekk ko xalaat ne bëgg naa ko nga bëgg ko ngir li ma ko bëgg loolu rek nga ma mën a defal kon boo bañee kenn ndax moom bu fekkee ne moom xam naa ki gëm li muy wax moom du ko bañ ndax dafa wax ne shaqaaw man lam yahwani qad kutiba wa kawni al abdul xadim wajaba wax na ne saadati be xeyri mahbin kutibat wa kawni al abdul xadim qad sabat wax na ne qulub man lam yuhibuni ala wajalin wala yulaquuna ma raamu wala baaba kon kooku mun ko ki nga xam ne itam bugg ko dafa nekk ci weneen yoon a tax ñàkk xam yoon wa mu ne a tax ndax bépp murit bu bañ tiijaan dëgg muritam matul bépp tiijaan bu bañ murit dëgg tiijaanam matul bépp xaadir bu ci bañ kenn xaadiram matul ndax jullit ñëpp yonent bi ak yàlla dañu leen a sant ñu bëggante nit ku nekk nag na féete fa mu féete féetale fa xolam waaye jaami yàlla yëpp na leen fonk na leen yëg na leen yëkkati kum ci mën a jëriñ na la jëriñ kum ci mën a xaajal lor na la ko xaajal na fonk ñëpp këj leen fa nga xam ne mooy place ba ñu war a tegu bu bëggee ngërëmal yàlla wante tooñ ak xeeb ndax kii bokkuma ak moom yoon wu nu nekk wala nga doyadil ko wala nga jàpp ne daanaka jullit bu ñàkk fayda la amul solo amul solo ndax lislaam a jiitu tariixa ci biir cadre lislaam la nekk jullit ñi yonent bi sallallahu alayhi wasallam daf leen a sant ñu mel ne benn jëmm jullit bu ci ne di cër benn cër bu ci am metit yaram wépp yëg ko dafa leen sant ñu def ay birit mel ne mur bi dafa leen a sant kenn ku ci nekk yéene sa bopp li nga yéene sa moroom kon ñi bokkul tariixa sax dañoo war a boole seen bopp muy benn ndax mu ngi mel ne ay jawri nekk yu nekk ci tool kenn ku nekk ñu boole laat ñoo xam ne yaay leen yilif mu ngi mel ne tool yi rek toolu ceeb toolu dugub toolu ñebbe kenn ku nekk la nga am ku nekk am nga te ku nekk la nga am baax na kon nag koo ci bañ rek bañ nga yàlla ndax ku bañ xaritu yàlla bañ nga yàlla yonent bi sallallahu alayhi wa wax na ci alhadisul qudsi ne man aada waliyan min awliyaay faqat aadantuhu bil harbi képp ku noono benn wàllu ci sama noon sama wàllu yi déclaré naa la guerre suñu borom ko wax tabaraka wa taala kenn noonoo benn wàllu ci sama wàllu yi déclaré naa kon nag ñi nga xam ne nit nag dana gàtt xel li ñuy wax dof ba koo bokkalul dëkk wala ko bokkalul réew wala koo bokkalul tariqa nga am ay réserve ci moom ñakk xam rek la kii man xaadir la kii tijaan la wala man tijaan la kii murid la wala man murid la kii xaadir la wala tijaan la naa ko bañ wala bu ma ko jëriñ ka ngay woote ci boppam ka nga nekk ci yoonam moo la njëkk a mere moo njëkk a dañ ci yow ndax xutbal xaw si kenn ku ci nekk ku fi jóge sa bépp taalibi boo gërëm xutbul xaw si bi teew da ko teg ci loxoom da ko ko dénk loolu nag boo amee nga dal di xam ne lislaam ji jenn la jullit ña bokk yonent bi bokk yàlla bokk alxuraan bokk xibla bokk julli yi bokk koor yi ñuy jaamu lépp ñoo ko bokk kon nag waa jooju muy laaj ndax dafa war a bàyyi warul bàyyi dara warul bàyyi du jaamu yàlla gi du bëgg sëñ Tuubaa bi Tijaan bu ko waxee bu mu bàyyi jaamu yàlla gi bu mu bàyyi bëgg Cheikh Ahmad Tijaan wala El Hadj Mali wala eh, Cheikh Fuuti yi wala kenn ku mu doon xaadir bi noonu. dafa am jigéen bi mu ne ramm moom kañ lay commencé góor gi mu ne ndax sëriñ bi mooy jàpp ci loxo ki muy ramm dugal àjjana wala déet. dina lu mën a nekk la. dis ngeen xaddis bi yonente bi sallallahu alayhi wasallam ci boppam moo ko wax moo toog ba mu yàgg muy ree ñu ne ko yow yonent yàlla bi yàlla na suñu borom reeloo say bëñ maanaam yàlla na la suñu borom dëgal li ngay ree lan la mu ne yomal xiyam la mun mel ne maa ngi toog am jëmm joo xam ne dafa amoon jaamu yàlla gu bari waaye mu am xaq yu bari borom xaq yi ñëw ñu di leen fay ci tuyaaba ji mu amoon ba di seetul dara am benn waay bu ko poñe ne ko danga may fay sama xaq amatul kooku dikk kalaame kook suñu borom ne ko kii amel na ma xaq te nanguwumaa fay waa ji ne ko ah man aw ma dara lool li ma ko nettali bari na lool suñu borom ne ko ah waa amul dara mu ne ko ah waa amul dara waaye man de du ma daf may fay ndax man it amatuma dara fay naa xaq yi ba jeexal amatuma dara te ñu ma teg sax ay bàkkaari jaamur yoo xam ne dama leen amee loon xaq suñu borom ne ko téenal mu téen asamaan séen ay këri wurus ak kër yoo xam ne mu ne su ko misaal ci adduna yi rafet yi doy waar mu ne loo gis mu ne ko gis naa lu doy waar li nga gis lan la mu ne ko kër yu rafet rafet waaye ban malaaka wala ban yonent moo kër yooyu mu ne kër yooyu day dama koy jaay ni ko ah loolu moom kenn amul njëgam mu ne ko ah am na ko am njëgam mu ne ko ka am njëgam mu ne yow mii mu ne ko am naa njëgam ne ko waaw luy njëgam mu ne nga baal sa mbokk mii mu baal ko mu ne ko jàppal ci loxoom ngeen yóbbu ngeen dem àjjana kooku jàppale ci loxoom moom yóbbu ko àjjana nit dana masa dox ba mar jàdd ci kër ñaan ndox am ku ko may ndox mu naan yomal xiyaam ki ko may ndox dem safara moom mu dem àjjana mu sëpp ko ci laaraaf ki ci safara xàmmee ko ne ko eh yow xam nga ma mu ne ko déedéet yow de am na bis boo xam ne da nga maroon nga jaar suñu kër man maa la mayoon ndox ndax dooma saraxul suñu boroom mu dimbali ma yow mi nga xam ne gërëm na la ba yóbbu la na ndax mu tin la yóbbu génne ma safara yóbbu ma àjjana kooku daal di rus suñu boroom waaye xamul na muy def ak waa mu daal di wàññiku suñ boroom dal di ko ne loo bëgg a wax xanaa jaam boobu nga xam ne daf laa defaloon njekk waaw mu ne ko tey dugg nga àjjana te ku dugg àjjana doota am lu la naqari te bu ma wàccee waajooju ci safara da nga am lu la naqari na génn safara waa ji génn safara xam nga ne kooku ram mu ne ko ci may ko ndox rek mu naan yonent bi sallallahu alayhi wasallam dafa daan am jamono yoo xam ne day waxtaane yaatug yërmande yàlla ba ku nekk defe nekk ñépp ay mucc am jamono muy nettali maanduk suñu borom ku def lii mu def la lii di wax li aay lépp te ñu tere ko nit ñi li ñu mën a bàyyi yi ñu mënul a bàyyi ba ñu gëm ne kenn du mucc